laaj mënuñu wax ci lépp te duñu wax ci dund bu cher bi sama gaañ yi mënuñu wax lépp te duñu wax ci diesel gi maquillage bi ngeen yoonu yokkute dafay indil ñu yoonu yàqute maki nga indil ñu mu ngi ñuy rey seulement ñu ngi fay ndox lu cher te duñu gis ndox rarement la ñuy gis ndox. courant bi. courant bi. courant bi. courant bi. ndox mi. ceeb bi. diw gi. tomate gi. tomate gi. mais tigga jege. barsaq wala barsaq licence de pêche licence de pêche ci nappkat yi ñëwal ata ñëwal sama gaañi sama gaañi am loo xamante ni su ngeen ko gisee libéré Sonko libéré

le peuple sénégalais répond présent. Nous, le collectif des familles des détenus, notre quotidien, c'est qu'on se réveille un jour, on nous dit voilà, on a attrapé ton fils, il est au commissariat. Une fois au commissariat, on l'amène au parquet. Au parquet, deux ou trois retours de parquet. on le ramène au commissariat. Quatrième retour de parquet, il fabrique les motifs, on lui on lui met un mandat de dépôt. Mandat de dépôt, six mois, on l'entend pas sur le fond. Neuf mois, on l'entend pas sur le fond. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont fait là-bas 13 mois jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été entendus sur le fond. Mané, cette dictature-là, elle va cesser. Cette dictature, elle va cesser. La voiture, la voiture, la voiture. libère lui-même. La patrie ou la mort nous vaincrons. Merci beaucoup. jaajëf gars yi jaajëf. mu ne micro bi nga jóg ah. c'est bon. salaamaaleykum Sénégal. gars yi. lii avant-goût la. préfet bi. te Sénégal yëpp boo ko xoolee aujourd'hui ay partisans lañ comme ni ko DGE nekkee comme ni ko ministère de l'intérieur nekkee joxuñu cër sénégalais yi Macky Sall la ñuy liggéeyal looloo waral ñu bàyyi ba 11h30 ñu soog ñoo jox autorisation mais loolu mënul yàq dara parce que ku xool mobilisation bi xam ne sénégalais yi déterminé ni kon nag gars yi lii avant tout la incha allah on reste mobilisé parce que combat bi mi ngi suñu kanam il faut nous faut beaucoup d' énergie et encore beaucoup d' autres mobilisations libérer tous les détenus c' est une exigence aujourd'hui waxtaanee wuñ ko ñaanuñ ko xaraxuwuñ ko c' est une exigence ànd naa ak benn délégation dem seeti Karim Xurum Xaq fële ca Sébikotane depuis sept mois mi ngi foofu il se porte très bien nee na ma waxal waa Sénégal xiifuma maruma sonnuma loofuma tayiwuma tànk askan baa ngi ci biti di xeex tout à l'heure nit dof dina ñëw pour waxal tous les autres détenus Aliou Sané Aliou Sané nee na ma waxal waa Sénégal ne leen je me sens super bien maa ngi si jàmm je suis super bien traité su ma xëyee entraîné jaamu yàlla lekk tëgg liir livre yi ma bëggoon a liir parce que sama xel daal na xam naa ne ci biti gars yi dinañ def maintien combat bi dina continuer kon Sénégal le combat continue vive le Sénégal vive le peuple debout libérez les détenus politiques jaa ngeen jëf sama gars yi libérez Ousmane Sonko libéré. président Macky Sall dégg leen ba pare sortez ce qui est dans vos tripes libérez Ousmane Sonko à nos jours nous avons choisi l'opposition parce que xam nañu ni dem bu wuti ay privilèges taxul jóg li ñu tax a jóg mooy développer le peuple développer le Sénégal avec ñi nga xam ni gëm nañu Sénégal muy yéen ñi tàccu leen seen bopp. ce Je disais à quelqu'un, au président Habib, ñam naa gaz lacrymogène bu Ousmane Ngom ñam naa gaz lacrymogène bu Mbaye Ndiaye ñam naa gaz lacrymogène bu Abdoulaye Daouda Diallo bu Ali Nguy Ndiaye ñam naa gaz lacrymogène bu Antoine Diome tey nag ñoo ngi demandé à Sidiki Kaba nga xam li danga xam ci droit de nga fekkee ba lu mel nii mu koy saluer le peuple sénégalais mën di génn di exprimer li nga xam ni moo leen naqadi pendant longtemps on a voulu nous opposer aux forces de l'ordre à ces policiers et à ces gendarmes je suis militaire je sais ce qu'ils subissent on ne peut pas nous opposer à eux ce sont nos frères et vous voyez comment ils encadrent cette manifestation lii moo war a continuer parce que lii la démocratie demandait et non respect à ces forces de l'ordre notre combat du ñun ak yéen suñu combat ñun la ak président de la république Macky Sall bi nga xam ni képp kuy opposant mu bëgg naa sa xal li nga xam ni mooy sa projet projet président Ousmane Sonko kenn mënu ko nasaxal naka ci li nga xam ni moo nekk di daw ci réseaux sociaux yi concernant son état de santé ñun ñi ñëpp jéem nañu ba tàyyi wut ay permission pour dem gisi ko ñu interdire ñu ko en tout cas le président Macky Sall maa ngi koy interpeller solennellement na libérer le président Ousmane Sonko mu mën a ñibbi kanam ci wetu ay njabootam na libérer Aliou Sané na libérer tous les détenus politiques ñoo ngi ci élection présidentielle Ousmane Sonko est candidat et comme nous tous les autres candidats nañu bàyyi ñu préparer élection yi et le peuple souverain que vous êtes vous êtes à choisir votre prochain président et c'est pas à lui de vous dicter qui vous devez choisir encore une fois je vous exprime mon admiration mon respect et na continuer Sénégalais, je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, président Macky Sall, Macky Sall nanga libérer les prisonniers d'opinion. Nanga libérer Ousmane Sonko. Le humanitaire droit humanitaire nee na nekkee en guerre ce prisonnier bu feebaree des conditions nekk incompatibles avec la détention danga ko war a libérer c'est le cas de Ousmane Sonko dont l'état de santé est préoccupant kon dañu ko war a libérer mu dem faju ji dañu les milliers Les milliers de détenus politiques sont à libérer. les jeunes ak ñun ñii seen yaay yi du ñu leen bàyyi ba défendre notre démocratie jusqu'au bout monsieur le préfet na nga xam ne désormais da ngay toutes les manifestations toutes les manifestations désormais il faudra les autoriser Amadou Ba mu ngi wër dëkk bi di campagne di campagne ni mu ko neexee sañoo woon ba autorisé bi manifestation te désormais manifestation yëpp nga dara autorisé kon à notre jeunesse à notre jeunesse combattante à nos sœurs jeunes filles, les mamans et grand-mères que nous sommes il faut nous mobiliser fexe ba suñu détenu yi ñoom ñëpp ñu libéré leen waaye nag continuer continuer la mobilisation bu ko defee 25 février à midi jàppan tati ñu taxali ko ak ñi ñu taxali ko ak ñi ba faw jërëjëf. libéré. asalaamaaleykum ngeen baal ma nag ak tey ñii taxawal mais maa ngi wax ak état du Sénégal di wax ak nguur gi fi nekk ak kilifa diine yi ak notable yi ak bépp doomu Sénégal ak kilifa aada yi di wax Sénégal réewu jullit la waaye avant tout tamit réewu ngor maa ngi xamal leen ne ki ñu teew fi tey ak ñi mu àndal président Ousmane Sonko ak gëtali politique yi ngeen note boobu ngeen gis mu génn am na ñaari fan bi mu génnee ak tey ëpp na ko sax defe naa ci trois jours lay toll trois jours yooyu est-ce que man ngeen xam lan moo nekk état de santé Ousmane Sonko Ousmane Sonko de état de santé am na foo xam ne nii maa ngi ñaan président Macky Sall politique am na loo xam ne jarul ñoom ak Karim Wade jaaroon nañ fi te terewul tey dem ngeen ba soxlaante waat jaaroon nga fi ak Khalifa Sall dem ngeen bay bokkaat table di waxtaan adduna jeexagul te Ousmane Sonko mi ngi fi di continuer kon am na lu nga xam ne dafay ñaaw te bu ëllëgee day naqaree rafetal Amadou Ba yow ak Ousmane Sonko yàgg ngeen démb ay doog a ñëw am na lu bari loo xam ne jaar na ci seen diggante doonte àndatu leen ci wàllu politique bu la dara jaral ci àdduna jël bakkan ba nekk président Sénégal am na loo xam ne buñ la diggee ne la diw bu dee wala diw bu feebaree wala diw bu bokkul yaay jël loolu dara jaralu la ko te jàpp nañ ne au moins que ab jullit ga sante Ousmane Sonko man de xam naa ci lu bari parce que li tax ma xam ko yéen xam ngeen ko waaye maa ngi leen di seedeel ne Ousmane Sonko guddi yi ñu toll teggi ko loxo taxul mu dem këram mais nañ ko teggi loxo mu mën a génn ci grève de la faim bi mu nekk mën a jël ay garabam comme nam ko war a jëlee man message boobu laay lancer président président Macky Sall di ko lancé kilifa diine yi di leen wax ne Sénégal saa bu masaan jub guuta du fa yegg parce que kilifa diine yi ñooy jóg jub na ci guuta boo xam ne nag maa ngi woo Touba di woo Tiwaawan di woo Njaasaan di woo Laayeen di woo ñu wax ak président Macky Sall mu delloo si xelam di wax libéré Sonko libéré tout le détenu politique wasalaamualeykum wa rahmatullah comme c'est la première fois xam naa sama kàddu du du xaw a waaw waaw waaw waaw waaw waaw jërëjëf waaw ndaje tey bi man benn seetlu rek laa fi am xoolee en si de temps lu fi daje si nit da ngeen di xam ne le le source la source du problème. ce n'est pas la population l'autorité administrative boo xoolee policiers yi ñu ñu encadré tout le temps wax ci télé que les gendarmes et les policiers duñu suñu ay ay ennemis mais malheureusement c'est l'homme politique qui crée une situation boo xam ne indi ay jafe-jafe donc vraiment maa ngi leen di ñaan di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp vraiment ci ndaje bi je vous remercie vraiment vous tous merci je suis profondément Dieu. Ce que sera demain le Sénégal, nul ne sait. Seul Dieu sait. kon lay ñaan monsieur le président de la République bu fekkente ni dignité ak vraiment bu baax mu ngi ci yow man bi si dama la porté woon dans mon cœur et je me suis porté garant porté remercie. ci kaso bi pour yaakaar mën nañoo wàññi doole Ousmane Sonko Ousmane Sonko li may tëje mooy bu sénégalais yi nelaw Macky li muy jéem lépp mooy bëggul Ousmane Sonko nekk candidat en 2024 bakkan lañ ci teg sunu bakkan lañ ci teg sunu bakkan lañ ci teg sunu bakkan lañ ci teg sunu bakkan lañ ci teg sunu bakkan lañ ci teg Ousmane candidat Ousmane candidat Ousmane candidat Ousmane candidat Ousmane candidat je vous remercie chers camarades merci beaucoup waa lii moo tax lii moo tax beaucoup bâti pour un projet. te projet boobu mooy sauver Sénégal. nañ ko gëm te xam na tànk yu ñu andi fii du ay tànk caaxaan mbokk yi président Ousmane Sonko buñ ñu gën a gore nit du dee ñaari yoon te fii kenn ragalu fi fay nañ suñuy bor pare nañ ku ñu jàmbaarloog Macky Sall xam nga pour lan bu ñu waaji ci biir gën a gore jàmbaarloog Macky Sall day farata mu bàyyi yi ci kaso bi ñu dellu seen i li ñuy wax nag mooy na ngeen xelu te ne teg dañoo jàppoon ne lii lu am mënoo fexe ba ñëw fàtt nañ fépp mbooloo mi bañ a bari waaye gaa ñow ñëw nañ képp ku fi jóge na nga xam ne bis nekki tey nanga nga takkuwaat ñu laxasaayu jàmmaarloog Macky Sall ñu libéré président Ousmane Sonko jaa ngeen Sénégal pour la démocratie donc nañu continuer ci lancé bi demain am na ñeneen ñuy woote gannaaw suba na ñeneen ñuy woote di wax rek ne combat bi ñuy mëne pour le Sénégal kii di Ousmane Sonko daf ci nekk la solution malgré que mu ngi ci diggante malgré que mu ngi hôpital gëm nañu ni lenn rek lañ koy ñaan di ñaan yàlla mooy mu may ko gudd fan parce que lenn de wóor amul Macky Sall fu mu mën a jaar ba du wàcc 2024 amul Macky Sall fu mu mën a jaar ba du tere yéene bi jeunesse bi am ci Ousmane Sonko mu eggali ko kon nag nañu am fulla nañu am fayda bu ñu kenn leen tiital bu ñu kenn tapet loo parce que comme ñu fi jaar bu ñu wax léegi léegi ñun duñu ay défaillant ñun duñu ay traître ñun duñu jël gaal gi ñun duñu daw ñun duñu dayyi taxaw jàmmaar la Macky Sall ndax Sénégal parce que moomuñu moomul Sénégal moomul suñu avenir mën pour ñu dégg ko mu ngi résister au péril de sa vie alors résistons au péril de nos libertés c'est le moins qu'on puisse faire battons-nous si nous voulons être libres merci tout le monde. merci beaucoup. Aminata Aminata Bizona Zumana Dapa Mandela bu bees pour 2024 te incha allahu rabbi ñun si ñooñu la ñu bëgg a bokk te si ñooñu la ñuy bokk dañu bëgg ubbi Sénégal bu bees Sénégalu bon gouvernance Sénégalu transparence Sénégalu politique nationale de la jeunesse Sénégalu liberté d'expression liberté d'opinion liberté d'association Sénégalu wér Sénégalu jàmm sénégal salaam sénégal bëgg sénégalaise. On est très fiers de cette société civile parce que ñun dañu am chance liggéey ci société civile xam ne ñoo xeex code minier ñoo xeex code de transparence des ressources minérales ñoo xeex code gazier ñoo xeex ñoo xeex ñoo xeex ñoo xeex ñoo xeex mbañ gàcce ñoo xeex ñoo xeex ànd seeg politique yi donc ñu ngi leen di wax ni kàddu gi du gudd on maintient incha allahu rabbi page bu bees 2024 ak la jeunesse sénégalaise ak les hommes dignes avec les hommes responsables avec les femmes de courage de valeur et de on vous remercie merci beaucoup góor ñi jàpp ñu am fayda ñi jàpp ak mère de famille yi tëj leen ci kaso yi toroxal leen bunduxatal leen foogoon ni bu ko defee Sénégal yëpp dinañu ragal toog waaye lii mu gis tey war na ko ni il a échoué et il a échoué lamentablement Sénégal du réew bu ñuy noot Sénégal du réew bu ñuy humilier Sénégal du réew bu ñuy bundu xataal wan ngeen ko ko kon nag sénégalais yi mbokk yi maa ngi leen di ñaan ñu gën a taxaw ñu gën a takku suñu détenus yi fa ñu nekk ci différents prisons yi président Ousmane Sonko fi mu nekk ci lal yi mu tëdd dama bëgg ñu boole suñu xol yi fii tey ak énergie yi ñu am ñu wëy ñu yuuxu ba ñu dégg ñu ñu fortifier leen ñu tenir résister ba fekk si ñu fii ñu continuer combat bi woy bi ngeen yëkkati woon léegi di ko woy 2019 bi ñuy dugg Ziguinchor élection présidentielle maak Sonko ñu toog ci kaw oto bi bi ñu duggee ci dëkk bi xale yi ñëw spontanément woyal ñu ko je sais que lu koy touché la luy laal xolam la kon nag mbokk yi maa ngi leen di ñaan ngeen yëkkatiwaat ko oye oye ile jambet yaana honnête état Ziguinchor Sonko bena la jërë ngeen ma tuddee doyen Ousmane Sonko daanaka mën naa ko papa am ñoo xam ne ñii daf leen di jaaxal lu tax may ànd ak moom

ma dégg Ousmane Sonko yëkkati loxoom ne moom def na 15 à 20 ans employé domaine kenn mosu koo jiiñ mu taxal mu taxal dërëmu Sénégal. ma ne moom ñoo bokk principe moom ñoo bokk ndaxte man. def naa 33 ans administration nekk ci buntu xaalis def naa 10 ans pouvoir ana ko mos a mën a wax fii ne Habib Sy taxal na gërëmu Sénégal. kon kooku damay koy reflet ci moom. lii nga ne teg nañ ko ko dafay jeex ala kulli aal Macky Sall dana ko bàyyi ala kulli aal Ousmane Sonko sera au pouvoir en ala kulli al projet bi dana taxaw 2024 moo tax may wax xale yi jël gaal yi découragé bu ñu dem parce que projet bi dana taxaw 2024 te ñoom ñëpp danañ ci gis seen bopp libéré Ousmane Sonko libéré Aliou Sané libéré tous les détenus félicitations Amnesty International am Amnesty International félicitations Y'en a marre félicitations. ni réew mii réewu liberté la république fi la fekk liberté réew mii fi la la révolution torodo amee 6776 réew mii fi la Thierno Baal nekkoon réew mii fi la Almaami Abdou Khadir Cheikh Ahmadou réew mi fi la Cheikh Omar Foutiyou gàddoo jaasi ba tubaab bi wax ni il a mystérieusement dans les falaises de Bandiagara réew mi fi la Cheikh Seydi nekkoon réew mi fi Maam Cheikh Ibrahima Niass nekkoon réew mi fi la Mamadou Lamine Dramé nekkoon kon réew mi ab ragal yeewoowu fi ma daaneel parce que waxtu wi jeet na benn verset coranique laa leen di wax du samay wax du waxu benn sëriñ waxu sunu borom la yàlla moo wax ci alquran ni inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas qui est en xeex bi kenn duñu ko xeexal xeex bi kenn duñu ko xeexal xeex bi xeexu jeunesse bi la xeexu peuple bi la إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر peuple lépp lu mu bëgg kenn mënu ko arrêté tey le peuple sénégalais ñoom ñooy réclamer ay élections yoo xam ni élections yi inclusive la le peuple sénégalais ñoom ñooy réclamer la libération des détenus kon monsieur Macky Sall man Imam Dramé sa xarit maa ngi waxaat ak yow dina wax ni réew mi rien n'est trop nga am yoon boo mën a jaar dem fii ku mer amu fi fii ku dul fàtte amu fi monsieur le président réew mi moo soxla candidature Ousmane Sonko encore une fois nañu taxaw tem xam ni le combat est loin d'être terminé le combat est presque terminé mon frère li gënoon jafe romb nañ ko ñeenti weer moo leen fi dese ñeenti bu xeex nag fukki at ñaar ba ñeenti weer dese la amoo droit di dellu ginnaaw nañu taxaw tem am ni combat bi gagné nañ ko bu loolu passé ñu ngi félicité bu baax la société civile